tali nag jàmm ñu ànd xëy yër yéen i kaay ñu xëyandoo yéen i kaay gi di réew mi ko di jenqëy du ñu xibaar naan ñu lu jëm ci wàllum élection syndicat jàngalekat yi démb la ubbi yéen kaay gi nee na lu toll ci juróom fukk ci syndicat maanaam cinquante syndicat jamono ji ñoom ñoo jongante xool kan moo ëpp doole kan moo ëpp mbooloo yéen i kaay gi nee na jàngalekat yi nga xam ne ñoo war a voté bi ñu ko xaymaa toll na ci cent yoo xam ne ñoo nar a voté maanaam lu toll ci téeméer ak juróom-ñeent fukki junni yu fekk juróom-ñeenti téeméer ak juróom-ñeent fukk ak juróom-ñetti jàngalekat ñoom fas yéene voté ci élection syndicat yi nga xam commencé journal bi nee na ñi nga xam ne ñoo nekk ci njàng mu digg doomu mi te war a woote bi ñu ko xayma toll na ci ñeenti téeméer ak fukk ak ñaari junni yu fegg téeméer ak ak benn su dee nag njàng mu lalo mi toll na ci juróom benn fukk ak juróom junni yu fegg juróom benn fukk ak ñeent ci jàngalekat yu nekk ci njàng mu lalo ñoo xam ne danañu daal di vote ñi nga xam ne ñoo bindu ci lu jëm ci wàllum yi bi ñu ko xaymaa toll na si juróom-ñaari téeméer ak fukk ak ñett yéenekaay gi nee na kuréel gi nga xam ne moom lañ dénk lépp loo xam ne jëm na ci wàllum saytu élection yi la mu xamle mooy mbir mi ma ngay dox yéenekaay gi de la point quotidien xëy di ñu xibaar naan ñu Hadjibou moo fi sampoon ay laaj laaj ko gouvernement bu Sénégal ndax keroog ba fi Marine Le Pen ñëwee ndax dañu ko joxub xaalis waaye gouvernement bu Sénégal maanaam génn nañu sa noppi gi ñu noppi woon andi nañu ci ay tonto dañu ko weddi ba pare daal koy dànkaafu maanaam daal di koy menacé ndax ñoom li ñu gis mooy Hadjibou Soumaré dafa bëgg a yàq deru nguur gi ak deru président Macky ci loo xam ne tigu a saltel collectif bu mag waaye nag journal bi la point nee na bu Sénégal dàqu ñu sax topp Hadjibou Soumaré fa mbaxana doone benn yéen kay gi de xëy di ñu xibaar naan ñu en tout cas li nga xam ne Hadjibou Soumaré laaj na ndax état bu Sénégal dafa jox Marie Le Pen loo xam ne jege na huit milliards loolee askanu Sénégal bëgg na leneen tamit am lu leer mooy quatre yi nga xam ne dañoo wax ne dañu koo lepp ci turu Sénégal ngir ab projet secteur privé ñi nga xam ne ñu jàppale Ousmane Sonko bokk ci Pastef nekk ca diwaanu Tivaouane ñoom nag dimanche ji ñu génn doon nañu amal marche pacifique maanaam doxub jàmm ngir nag ñaawlu bu baax a baax jàpp gi nga xam ne ñoo ngi koy jàpp askan wi di leen dugal ci kaso bi waaye ñi nga xam ne ñooy waa Pastef ñoom tim daan nañu yëkkati kàddu nee nañu jamono ji li nga xam ne moo xew ci réew mi neexu ndax askanu Sénégal sonn nañu ba mara détaillé jamono ji dund gu ne metti na ak njëg yoo xam ne dafa yokk ba mara détaillé courant ak li nga xam ne mooy wàllum location bi yéen kaay gi di Sud Quotidien xëy di ñu xibaar nañu doxalinu waa PDS ñoom nag lëndëm na loola ci lu jëm ci wàllum ku jege ndax PDS 2016 ba léegi gis nañu ne fu opposition bi jaara PDS fa sa des la ñuy jaara yéen kaay gi nee na assemblée nationale ak motion de censure bi nga xam ne coalition Yewwi Askan Wi tegoon nañu ko ñi nga xam ne ñooy waa PDS gis ngeen taxawaay bi nga xam ne moom la ñu si amoon ndax coalition wàllu Sénégal ñoom bi ñu leen waxee dañoo wax ne ba ñuy préparer texte bi maanaam kenn yëguluñu ko waaye tamit lu jëm ci wàllum vote budget ak institution yi rawatina au conseil des collectivités territoriales bi nga xam ne jàpp nañu ne yàqub xaalis la loolee tamit ñi nga xam ne ñooy waa PDS maanaam ànduñu ci ak moom dafa dem di voter li nga xam ne mooy budget institution yi te loolee waa Yewwi dafa jàpp ne yenn institution yi yàq xaalis la yéen kay gi ne na élection yi nga xam ne tamit moom la ñu génn gis ngeen ne bi benn coalition la ñu taxawal waaye nag ba ñu demee ba waa PDS ñoom ñoo mujjee ne du ñu jàppale kenn même élection législative 2017 loolee tamit opposition bi tegoon nañu ab coalition ba ñu demee ba ci pandaw ga ñi nga xam ne ñooy waa PDS ñoo daal di bennoo bi ci mujj mooy lu jëm ci wàllum kuréel goo xam ne dañuy xeex lu jëm ci wàllum ñetteelu candidature Macky Sall li nga xam ne moom la waa PDS di leen dal tey moo leen ko teg yéene kaay gi de la Tribune xëy di ñu xibaar naan ñu am ba des daal sëy bi nga xam ne war nañu ko takk diggante PDS ak ñi nga xam ne ñooy waa APR mbaa nag mbay gu njëkk gi nekkul 138 nga xam ne moom la toppee Karim Wade wax nee na sëy bi nga xam ne dañu koo war a sëy bi ñu war a diggante ñi nga xam ne ñooy waa PDS ak waa APR journal bi nee na dot bi may gu gi mbaadu nekk 138 milliards yi ab laaj la yéen a gi di wal fajire xëy duñu xibaar naan ñu Pam Ndiaye journaliste wal fajire am na retour de parquet journal bi li mu gisa maanaam ak xooqutal goo xam ne ñoo koy teg Pam Ndiaye dossier bi nag boo muy également activité yoo xam ne mën naa andi ak pëccëxoo ci réew mi ak fraude fiscale yéen a kaay gii di la sa nee na mbootaay gi nga xam ne moo ëmb ñi yëngatu ci wàllum jàngale alxuraan ci réew mi ñoom jamono ji mer nañu ba mara détaillé waaye nag ki ñu mere mooy Aliou Ndoye maire bu Dakar Plateau ndax nee ñu président Macky Sall dafa am benn projet boo xam ne moom la taxawal projet boo xam ne la mu wundu tabax benn immeuble boo xam ne seize étages la la nga xam ne moo fay ruusate ci xaalis ñu tabax ci ay daara waaye immeuble boobee nga xam ne seize étages la jamono ji liggéey ba ba demul ci nga Abdoul Mbaye Laar loole moo tax mbootaay gi ëmb ñiy jàngale alxuraan ñoom Aliou Ndoye la ñu bëggoon nañoo amal sax ab sit waaye nag dañu faa fekk ñi nga xam ne ñooy waa mairie bi ñu daal leen koy tere ñoom dañoo tuumal Aliou Ndoye ne moo bëgg a projet boobee nga xam ne Macky moo ko tekk yéene kaay gi sax xëy yóbbu ñu hôpital bu Kolda foofee liggéeykat yi jamono ji dañoo mer ba maara détaillé journal bi nee na directeur hôpital ba dafa a woo ji police gars yi ko ubbil buntu ba yéen a kaay gi di sunu làmb xëy dañu xibaar naa ñu sàccee sa daan nay def ab recours ca CNG waaye ci semaine bii dinañu xool maanaam ban dogal la ci CNG di jële ci combat bi doon dox digganteem ak rëg-rëg sàccee sa ci biir journal bi nee rëg-rëg maa daana nañu ma jox sama drapeau rëg-rëg ci biir bi nee ko sàccee sa gëmal man maay làmb